what up guys what up guys what's up everybody sama guy <laughs> yeah before going faster allow me to introduce myself again i go by the name of malachon and i'm from senegal west africa rio city my town <laughs> yeah they call my pap j ibrahim ndao mustafa mane from belgium That good from Belgium, you know what I'm saying? Duko my Borka Jallo, duko my Kalso my boy bi nek sama kanam you know what I'm saying? Duko my celebrity. Jegan célibataire bi. Bo sama gaay say limay xamal, duko my Kassa boy bu wana bële. bon sama ah, gars yi ah bëgg leen gars yi waaw eh, bon sama gars booy booy waa Sonatel daa am gars yi xam tey kii quoi interpellé si yooyu noonu quoi parce que Sonatel gars yi dañuy utiliser booy yi quoi dañ lay jël ba nga am yaakaar seen mbokk nam nga liggéey ñu arrêté la quoi mais am bosa leen gars vous volez, vous volez, vous, vous, vous, nous volez assez bien pour, pour, pour, pour nous embaucher. Vous nous laissez les crédits 20 francs, 30 francs, hein? La connexion est devenue un luxe dans ce pays. Vous avez le wifi parce que vous avez un bon Mais vous avez embaucher les gens. Vous avez assez d'argent. mais da ngeen jël benn boy embauché ko dafa ko CDD isaan ville mu defee am na liggéey il a il a tunnel mu dem ba si kanam ngeen ne ko arrêté ngeen ko tu vois ni kay boo ko defalee CDD kay jarul nga xëy renouveler ay CDD yi dul jeex boo ko defalee CDD war nga xam ndax kii nga ko wala soxla woo ko mais vous n'embauchez pas tu vois te vous nag te vous vous sucrez sur le dos des Sénégalais mais mais rendez à César booy di kii embauché wu dara ba pare sax dëkkee boo demee boo demee Europe foo taxaw da ngay am connexion mais ngeen jël connexion bi def ndox bu nekk Kër Massar euh, tout tout Kër Moussa moo toj kenn amul connexion ah. fi doon def boo jëndee benn paas yokk ko ngeen xëy daggal loolu noonu dafa ni day jënd 2 giga mel ni 500 emo la yor da ngay saan benn vidéo mu jeex sàcc xaalis sénégalais ba fa bu booy ñëwee ah le peu d' employés que vous avez booy ay CDD ngeen defal bu à c'est pas nice quoi li ngay def ni vraiment vous êtes des arnaqueurs quoi tu vois te kay dafa bëri man dama ma ci won wax quoi tu vois mais ñi ngeen di arrêté dafa bëri dafa dafa bëri mais fa d' d'accord yeen ñuy satch kay mais li ngay ñu sàcc delloo leen ko askan bi bu seen yeen boy mais da ngeen di sàcc nit ñi ba pare voilà boy kassa c'est vrai est vrai di ah dañuy arrêté contrat yu bëri ci booy fii te loolu du yoon du yoon quoi nañu embauché gars yi ñoom ñi ñuy sàcc kay mais li ñuy sàcc ah mais employé wu leen kenn ba pare bu ñu desalee crédit ngeen bi c'est un bi nga nekk fi ni on est dans l'ère numérique ah kenn amatul jotu seetaan foo dem sa smartphone ngay yor ah mais koo gis connexion lay jooy koo gis connexion lay jooy ah, bi boo ñëwee t'as plus de vie privée soo xëccee si banlieue bi parce que booy sa kër ñu assiégé ko mel ni ngeen te fexe wala benn mbër mooy waa dem bëri ji loolu dem ba doo bëgg sa xëcc parce euh, ñu ne bu tàkkee ñu ñëw laaj code bi toogal du fa mel ni da ngay sara dara ah mais c'est pas nice te connexion bi du bu affaire boo xam c'est kii yéen da ngeen yàgg nekk ay sàcc man je me rappelle temps yi ngeen nekkee Alizé connexion ay vingt cinq mille ngeen doon def ah il a mu am sénégalais yi rek il faut ngeen il faut ngeen ngatchu ñu suñu deret ba suñu sidit di feeñ ah, am concurrence mais c'est pas net connexion bi dafa ko dafa ko à la porte de tout le monde parce que élèves yi léegi si la ñuy jàng ah, comme coronavirus bi ni ma ngi dégg en Europe dañuy def euh, travail télé nu ko waxee sax booy euh, télétravail télétravail wa fi dafa mën def télétravail xam nga connexion bu doy ah seen connexion bi déjà baaxul bu mbëri defee pay per view da ngay jënd sa code do am au début du jall ah ñaanee pay per view pay per view te seen bi ngeen joxe baaxul ah ñeenti dërëm bi ngeen di sàcc ak ko dañu embauché booyi dans ce pays y a pas de boulot connexion bi ah, lay gàddu wala smartphone si lay liggéey si lay def lépp da ngeen jàpp Sénégal yi di leen ku tesel ñeenti dërëm ngeen jël dalal ton moom mën dama ci dugg da ngay dugg daal ah ah il nous en sus même mais loolu gënoon métti dalal ton bala may dee ñu am seen numéro ba naan dalal ton man dugguma dalal nit ki kay boo koy lebal tàggoo ko boo koy lebal di ko tàggu boo koy feeku dee ko tàggu mais fi ngay gën a soxlaa crédit nga dagg ko man dugguma seen dalal ton amul benn njëriñ vous êtes des arnaqueurs di ngeen embauché booy maa leen may bi man bii nag bii magi magi magi blanc la magi noir bee ngi si yoon bi boo leen embauché wul booy bàyyi seen affaire dof yi jël internet bi tas ko si dëkk bi gars yi am euh, ñëpp am accès à l' internet naa ñëwaat seen kaw première vidéo bi la et maa leen di bëggee ñëpp lu ma fi la tu vois euh, askan bi fi la voix des sans ma wax dëgg la rek parce que ñun moom dañuy ñëw ji impérialisme bi tubaab bi ñëw imposé ñu ay prime imposé ñu ay tarifam au détriment de de la population quoi de la population noire parce que suñu njiit yi amuñu fulla quoi dañuy albët te ku la albët moom fi fi kat ngay xool toujours nee naa leen tant que Afrique mi ngi dafa mel ni un fonctionnaire boo xam dafa dem boutique ba di premier au 31 kooku bu fayoo koo salaire am du feeñ fan parce bu fayoo koo day fayaat day bi di au 31 c'est un éternel euh, euh, euh, recommencement il faut apprendre à voler de ses propres ailes mais tant que ñi ngi naan ay FMI baal kii nañ baal loolu rek man sama yaay dafa judd FMI nañ ñu baal banque mondiale man ma judd noonu sama doom noonu mais nañ bañ africain yi li metti na trop waay ah bu ñu amee seen vaccin